Euh, monsieur Fall nuyu nañ la. wuyu nañ la monsieur Wagué. waaw dañ bëggoon nga présenté wu en personne ñëw si sa bopp nga présenté wu yow yore kan. Euh, man de man may Malick Fall. nekk directeur du fonds de solidarité nationale à la délégation générale et à la à la protection sociale euh, man nekk foofu nag directeur dëkk Njaareem nekk responsable politique ci commune bu ñu tuddee Ngoye Mbayar waaw loolu daal mooy présentation bu gat bi nga xamné mën na ka wax. ñepp xam nañ ne leader politique nga. Mhm. yaa ngi bokk mouvance présidentielle. waaye bëggoon nañu xam ne yow sa diwaan nan nga doxalee élection bi en personne yow en personne. waaw xam nga euh, bokkuma ci mouvance présidentielle dama bokk ci parti parti du président de la république maanaam militant la ci parti ci APR. APR bokk ci ci Benno Bokk Yaakaar. Euh, bi nga xamee ne élection yi ñëw nañ dañ ko dañ ko préparer vraiment préparer nañ ko bu baax a baax a baax a baax euh, bi yàlla defee nag euh, ñu door élection yi ñu ñëw jiital Dame Diop mu ñëw ñu waxtaan ànd processus bi mené ko ba à fin vraiment liggéey nañ ko liggéey bu rafet maanaam boo xoolee résultat sunu résultat yi nu mu demee rek war nga xam ne ñii liggéey nañ

Euh, xam nga ambition politique moom képp kuy def politique te amoo ambition boobu yëpp nga bàyyi nga dem defi leneen mais sama ambition mooy mooy Diourbel waaw sama ambition mooy mooy mooy mooy mooy Diourbel déjà man je suis man cadre la nekk euh, directeur euh, d'une d'une structure comme le fond de solidarité national mais sama ambition politique mooy mooy rek liggéey ak sama base liggéey ak waa Diourbel ba Diourbel jëm kanam léegi dañuy delluwaat si wàllu élection bi gis nañu sax balaa élection bi di tàmbali ak euh, campagne bi euh, donc ministre de l' intérieur bi am na ñu ne d' accord ñu am na ñu ne d' accord nañu coow yi bëri et cetera war na organiser warul organiser diggante opposition bi ak pouvoir ban jàngat nga si am. waaw xam nga euh, kooku débat bu gudd la débat bu gudd la élection dafa am ñaari parti parti bu njëkk bi mooy préparation élection yi beneen parti bi mooy jour élection yi. donc balaa ngay dem ci jour élection yi dafa am lu bëri loo xam ne euh, ministre ñi nga xam ne ñoo yore élection yi dañ ciy jaar euh, xam nga ministère de l'intérieur euh, loi bi dañ ko may pouvoir moom mooy reconnaître parti politique donc parti politique yooyu nga gis Sénégal ñuy wax yëpp ministère de l'intérieur moo ko signé jox leen récépissé donc ki nga xam ne moom moo la jox récépissé ne la yow valable nga kon dans ce cas defe naa bu fekkee yow da ngay dem élection war nga mun a waxtaan ak moom nga déglu ko nga waxtaan ak moom ba ba ngeen am fi ngeen fi ngeen fi ngeen am fi ngeen jëm ngeen xam fi ngeen jëm ngeen am li ngeen bëgg euh, mun nañu mun nañu mun nañu récuser par exemple ne ministère de l'intérieur du organiser élection yi mais élection dafa nekk loo xam ne euh, privé munu ko organiser parce que Sénégal dañu am ñetti fichier mooy fichier électoral bi nga xamné ne électeurs yëpp a ngi ci biir mu am fichier carte d'identité yi nga xam ne ñëpp ñu am carte d'identité ñu ngi ci biir mais ñaari fichier yooyu ñu ngi ci ministère de l'intérieur ki nga xam nag ne moo yore fichier yi am personnel bi parce que élection yi day impliquer les préfets élection day impliquer les préfets les gouverneurs ak commission yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy dem sur le terrain te loolu dañ ko yàgg a commencé ministère de l'Intérieur dafa jël commission yu bare bare bare bare jox leen jox leen mission ñu dem ci àll bi di di photo nit ñi di bi leen bindal ay carte électeur mu en même temps ñuy defar fichier électoral bi ba nga xam ne fichier électoral bi am na taxaw na carte électeur yi taxaw nañ ñu daal di joxe di distribuer carte yooyu defe naa loolu liggéey boo xam ne liggéey bu bare bare bare la su fekkee nag yow da nga nekk électeur nga toog sa kër rek ba loolu yëpp ñëw fekk si la nga dem vote ñibbi doo doo mesurer liggéey bi nga xam ne moom moo ànd ak élection mais le ministère de l'intérieur en tout cas man ci ni ma gisee liggéey bi mu dore ci carte électorale ci carte ya ba ci fichier bi ba ci distribution bi ak matériel électoral ak dépôt de liste ak 47 coalitions yépp mo organiser ko ba ñu dem ci élection man yaakaar na ne kooku opposition bi sax dañ ko waroon féliciter. parce que li nga xam ne mais quand même mais quand même gis nañ ne wàllu retrait carte bi ñi dem bëgg a voté mënuñu voter non xam nga délai bi délai bi délai bi délai bi xam nga délai bi moom moo moo moo moo moo gàtt c'est-à-dire que bi ñu nee dañu war a changer fichier bi da nga da euh, nga dama bëgg nga xam ne euh, élection yi yeneen yi élection yi fichier bi dafa amoon ba pare donc fichier électoral dafa yàgg am élection yi aussi carte électeur yi aussi dafa amoon donc ay ay ay renforcement rek la ñu def chaque année chaque élection bu ñëwé chaque er janvier ñu inscrire yu bees renforcer fichier bi défarat ko donc amul won modification bo xamné modification bu xoot ci ci fichier électoral bi amul won changement des cartes d'identité donc si délai bo xamné dafa délai bi dafa gatt lolu motax bo euh, boo euh, fitna bi nga xamné mom lañu défé lolu ak commission bi ak matériel li ñuy jënd ak informatique bi ak ak ak ak personnel yi nga xamné ne dañu leen recruter jox leen liguey bi lolu nous, bare bare bare aussi eh, vraiment eh, en tout cas pour man dañu féliciter le ministère de l'intérieur le ministre de l'intérieur ak son personnel parce que li nga xam objectif organiser les élections dans des bonnes conditions maanaam organiser élections ci conditions yu baax conditions yu leer nous, nag loolu ñëw nañ si d'accord d'accord nañ mais loolu yëpp eh, ku nekk ak mais man personnellement man dama ministre de l'intérieur dañ ko waroon félicité comme ni ko président defee waaw. gis nañ ne kii campagne bi dafa tambali rek. Mhm. violence bi tambali ak campagne bi. Medina Grand Yoff jour élection bi. violence baa am. Wa, en tant que leader politique. violence bobu am. xam nga élection xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga élection euh, manam manam xëccoo la sax.

di nga xam ne gagné nga boo gagnéwul aussi di nga xam ne ñàkk nga parce que euh, boo boo euh, boo boo boo damay tëb dem directement ci jouru élection yi boo demee ci jouru élection yi euh, parti bu nekk wala coalition bu nekk dafa war a am représentant ci bureau de vote bi donc yow yaa toogal sa sa parti ou sa coalition ci bureau de vote bi nga yendu di xool di xool di xool di xool ba ngoon soo gisee loo xam ne jaaxal na la wala arrangé sa parti wala sa coalition da ngay daal di ko bind ci procès verbal bi ne man de gis naa lii d' accord ma si wala samay bulletins ñëwuñ wala lii et cetera yooyu yëpp lu euh, code électoral bi daf ko may. mais li nga xam ne moo gën a am solo mooy bu ñu demee ba compter dafa am scrutateur scrutateur yoo xam ne maanaam ay électeurs yoo xam ne dañ leen di jël ci biti ñu dugaleen pour ñu jàppale bureau de vote bi pour ñu mun a compter mais bureau boo xam ne dafa am bureau. président B, assesseur B, secrétaire B, membre Sénat 47 représentants de de de de parti ou de coalition nous un procès di compter procès verbal. du procès verbal man parti bu nek na bu fermer bureau de vote ba PV comme tribunal jël calculer. li nga am parti bu nekk waroon na ko mën a def que parti bu nekk waroon na a am procès verbal chaque bureau de vote man yaakaar naa ne euh, euh, waa Dakar maanaam Benno Bokk Yaakaar bu dakaar noonu la def parce que bu mu bu ñu waxee ne gagné nañ kii gagné nañ fële dañoo jox ay chiffres te chiffres yooyu euh, maanaam boo xoolee chiffres yooyu mooy chiffres yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom la ñu jëlee ci en ci centre de vote yi chiffres yooyu moo wane ne benn Bokk Yaakaar gagné na su fekkee nag ne yow da nga da nga da nga da nga da nga da nga amul loolu. mën nga wax ne dañ ma gagné wala dama gagné wala nii extra mais élection yi defal leer ba nga xam ne ku gagné xam nga ne yaa gagné ku ñu gagné aussi xam nga ne gagné nañ la. en tout cas man fi ma féete woon fi ma féete woon coow amu fa xëccoo amu fa dara amu fa bi ñu paree ba calculer suñu résultat dañ ko am au centième près maanaam li nga xam ne moom la ñu trouvé moom la tribunal trouvé moom la ñu acheminé donc moom la ñu indi Dakar ça veut dire quoi ça veut dire que nit ñi léegi dañoo xam nu ñuy voté nit ci xam nañ vote donc euh, xam nañ ni ñu voté fu élection am bureau de vote bu nek parti ou coalition dafa war a am représentant su amé représentant bu ngone ba ñu calculer ku nek jël sa PV nga dem PV yi niroo ñu signé ko ku nek signé PV yi ñu dem mais PV yooyu mom lañu yobu tribunal le tribunal coalition ak parti bu nek day ñew tew président bi di lire so gisé va PV xom ne ngawul ak sa PV bureau mën nga sa nga ne ko man de PV bi ma am ak PV bi nga dinañ lan différence donc fii élection Sénégal leer na ba nga ne dem nañ ci processus boo xam ne dellu ginnaaw sàcc amu fi dara amu fi. Euh, pour l'instant résultat euh, provisoire moo résultat définitif. si diggante bi waa benn ne ñun ñu ne ñoo gagné gagné fii si diggante bi ñeneen contesté donc euh, wax ji que na sénégalais yo ban nga am. non ban jangat bima am la jël calculé joxe chiffre ne chiffre am gagné nañ mairie gagné nañ tel commune gagné nañ telle commune perd nañ commune etc. donc les résultats yaa au niveau de le président du tribunal président du tribunal lu mu calculer fu mu calculer ba am résultat bokul ak wa beno bok yakar fu ñu calculer ba am sen résultat beno bok yakar dañu calculer PV yi nga xam mom la représentant beno bok yakar yi yobale bu ñuy ñibbi calculer trouver loolu tribunal dafa am procès qui procès verbaux yi nga xam c'est des originaux la mom lañu mom lañu signer président de président de bureau de vote bi jël ko acheminer ko ben bi dem euh, ci autorité administrative ben bi dem tribunal légui nak yoy buñ ko calculer mu mengo mais ko dans ce cas xam nga né ñoñu ño yar chiffre yu bax yi. chiffre yu bax yi moy moy moy moy comme niñ ko waxé rek montre yu yu bax yi ñoo bokk heure. donc su beno Bokk Yaakaar calculer fele ci quartier général tribunal calculer quartier fele au niveau du tribunal ñu am les mêmes résultats ça veut dire que xeyna lolu moy lu bax lé té man gëm naa ne. Euh, niñ ko waxee ak fit ak fit ak fit bi ñu am pour annoncer loolu dem fële ana yaakaar naa ne Benno Bokk Yaakaar mooy gagné Dakar. Euh, tu penses que euh, résultat définitif bi dañuy maintenir les mêmes résultats bés bu génnee. non xam nga tribunal dafa joxe résultat provisoire. je pense que waaw léegi xaaral ma wax la tribunal dafa utiliser tous les résultats joxe ne résultat Dakar yi de ñun tribunal lii la ñu gis dal ko dal transmettre au conseil constitutionnel su fekkoon ne dafa am bureau de vote yo a dañ leen wara annuler wala coalition coalition demande demandé ñu annuler ay bureau de vote wala su qu'on est tribunal bi dafa annuler ay bureau de vote te mu dem conseil constitutionnel confirmer bureau de vote yo ñu annuler résultat yi mun na am différence mais problème bi nga mené ne soulever du problème bureau de vote donc annulation vote bu amul Dakar résultat yi nga xam ne moom la tribunal transmettre conseil constitutionnel dama xamul lan moo ko mun a changé donc même résultat yi lay doon. Eh, gis nañ Abdoulaye Wade gédd na moo Macky ni tam ñu ne euh, président Macky bu bu organisé waatee élection élection bi ñoom dootuñu si bokk. xam nga xam xam nga xam nga xam nga yaa ngi may poser question ci ci président de la république Abdoulaye Wade secrétaire général du parti démocratique sénégalais te ma àndoon ak moom pendant pendant pendant plusieurs années euh, bi ma yégee ne moom day ñëw nek tête de liste euh, def ma metti ba nga xamné amna am lettre ouverte buma ko defoon bo xamné man mako adressé président Ablaye Watt. parce que dama yaakaar ne Sénégalais jox nañ ko liñ ko wara jox ki nga xamné ne da nga nek professeur université nek dem ba nek recteur université dem ba dem député nek ministre d'État nek président de la République am âge bu mu am ñun benen traitement lañu wara am vis-à-vis du président Ablaye Wade Sénégal yépp dañ ko wara jël jël ko comme ancien président de la République jël ko comme vraiment patriote jël teg ko fo xamné ñun ñëpp muy opposition muy pouvoir muy Sénégal yépp fo xamné fofu lañ ko wara a mais su ñëwé di xëccio ay ay liste di xëccio ay député assemblée nationale vraiment man en tout cas métti ma man mom wax dëgg yalla d'accord ma si lool légui nak ci walu résultat yi euh, mom def na campagne àdduna mais

ñu tuer ce qu'on appelle tuer le père en entre guillemets quoi en psychologie manam manam manam manam dom xale bu gor bala muy dem bu mag bu sentir ne mom mag la il faut mu faté papam faté ne mom gor la faté papam mais permettreul euh, wa wa parti démocratique Sénégal ak ñooñu ñu faté sen baye donc dafa ñew tew et puis et puis une présence très active manam dafa ñew def lo xamné ne xëy na mënuñu ko won lolu motax Euh, mu demee nii mais yaakaaroon naa bu fekkee ne ñëwul woon te waxoon na leen à tant que du ñëw dem leen ngeen liggéey ñu mënoon na xëy na sax am lu ëpp li nga xam ne moom lañu am parce que dafa dem dafa ñëw maanaam effacé leen ci terrain bi waaw. ñoo ngi waajal beneen élection 2019 te gis nañ entre opposition ak pouvoir bi xajam na boppa pare lan ngay yaakaar ne lan mooy nekk solution. état bi wote ne dialogue lan moy nekk solution euh, pour ñu mëna waxtaan xolaat fichier bi quoi yo lan nga ci xalaat. waaw xam nga euh, question bi nga poser sans sànq paré wul parce que boobu wax nga ma ci affaire boycott bi. Euh, boycottu élection balaa ngay boté élection élection yu dafa am mais fu mu ne nii dañoo jóge ci élection dem ci période bu xaw a gudd y a une période préparation une élection la donc élection. Euh, coalition donc y lu de dafa dugg y euh, ak ak campagne bu 2019 ba y a boycott sax donc y mënu ko considérer parce que Donc, y a une campagne élection 2019 donc yaakaar na ne waragul mun a nekk daal. loolu non non non c'est pas du débat daal. du débat quoi yow aussi mën a prononcer non non non du débat ci moom ak ci ñun. du débat parce que eggaguñu foofu il faut ñu bàyyi ba élection yi ñëw candidat yi ñëw taxaw ñu door a xam ndax est-ce que dañu dem élection wala duñu dem élection wala war nañu boycotter wala wala waruñu boycotter. parce que ñoom lan mooy seen problème dañu jàpp ne le même fichier bi nga xamante moom la ñu voté non xam nga fichier électoral xam nga fichier non fichier électoral ñom je rappelle que fichier électoral chaque début d'année dañuy dañuy dañuy dañuy yéssalat fichier bi Té fichier bi nga xamné mom lañ la dañ ko yéssal yéssalat ko yéssalat ko bu mu nek fichier bu baax té demoon nañ sax bo xamné dañuy dem auditer fichier bi donc fi ak 2019 lu né mun na fi nek mun nañ auditer fichier bi Sénat ngi fi ñeneen ñaa fi oppo parti parti opposition yaangi fi ñu waxtaan ak le ministre de l'intérieur ñu geestu fichier bi parce que oh, fichier fichier c'est quoi c'est c'est ay données la ñuy dugal ci ordinateur bu ñu demee ñu xool ñu xool fichier bi xool ndax fichier bi fiable na ñi nga xam ne dañu jënoo jot am erreur ci seen ci seen inscription ñu corriger leen ñi nga xam ne dañoo jot am erreur ci seen pièce d'identité ñu corriger ko ñi nga xam ne dañoo waroon bind te bindiwul ñu bind leen am na dina am aussi ñeneen jeunes yoo xam ne dañu door a am dañu mille 2019 dañu am vingt ans ñoo ñu bind leen su ko defee ñun am beneen fichier parce que fichier bi dañ koy war di ko chaque année donc chaque début d'année en janvier le ministère de l'intérieur lance lancé waat commission ñu dem si si si si si à l'intérieur du pays ñu yeesalaat fichier bi loolu dina am léegi nag opposition bi le ministère de l'intérieur comme le ministère de l'intérieur moom autorisé existence ou parti toujours toujours dialogue bobu dafa wara a mais lim nga je mo moom jaaxal Nous dañu né opposition dañu né parti politique ñu un président de la république le président de la république est au-dessus de tous les partis le président de la république est au-dessus de tout le monde donc mon arbitre la dañu wara négocier avec le ministre de l'intérieur bu nous négocier dem ci fichier bi defar wax li ñu bëgg ñu xol li mëna nek nek, lu ñu ne bu ba blocage bu le président de la république il est au-dessus de tout le monde mon moy ñëw arbitrer mais c'est trop facile madame de dire dialogue avec le président dialogue avec le président etc moi je pense que euh, euh, dialogue wala su ñu buggee euh, yenn yenn yenn yenn kii euh, je pense que le ministère de l'intérieur est là pour ça moom moo moom moo moom mooy délivrer récépissé pour parti politique yi moom moo yore les l'ensemble des fichiers fichier carte d'identité fichier électoral fichier carte euh, carte carte euh, passeport et pourtant les fichiers on n'a jamais eu de problème loolu dañ ko yor chaque année du Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne un ay fichiers la carte d'identité Sénégal il faut que ñu respections passeport du Sénégal il ko yóbbu ñu respecter. la te le Sénégal le ministère de l'intérieur là. donc c'est pas parce que euh, dem nañ élection que dañu war a gagner wala gagner woon etc. avec 47 coalitions c'était tellement difficile dafa bëri woon liggéey bi dafa bëri woon ñu ñëw ba fii que que ministère de l'intérieur mënul déedéet man yaakaar naa ne bu ñu waxtaanee dinañ am fichier bu baax bu ñu bu négocier dinañ trouver consensus te bu trouver consensus dinañ dinañ am euh, euh, fichier bu fiable. gis nañ coalition Ben Benno Bokk Yaakaar gagné na. waaw am na victoire waaw effort bi nga xam ko def est-ce que effort boobu dina continuer fii ba 2019 xam nga xam nga parti politique boo koy créer da nga ne dama dama bugg a am pouvoir dama bugg a jot ci pouvoir bi je pense que les les les deux les 300 un peu moins de 300 cent partis yu ñu am parti bu nekk bañ lañ koy créer ki ko créer dafa bëgg a am le pouvoir léegi nag boo demee le cas de président dafa créer parti dem am pouvoir bi lépp li nga xam ne war na ko mun a def te mu légal war na ko def pour conserver pouvoir bobu te légal war ko def pour conserver pouvoir bobu donc ci lolu la wax ni mom ci bopam bu demee ba bëgg deuxième mandat day présenté wu te bu boba beno Yakar. yakar surtout d'abord avant Beno bok Yakar, c'est c'est l'APR l'APR ci bopam dina def lépp pour que élection yoyu 2019 bu ñëwé président dina ko gagner waxatuma euh coalition bi nga xamné mom moy mooy président parce que dina am même bu dee dafay dafay am benen tour wala ñu continuer ak Benno Bokk Yaakaar bi coalition bobu nga xamné mom moy mooy président dina def lépp pour gagner les élections de 2019. sa kaddu bu mujj. Euh, sama kaddu bu mujj moy moy moy moy moy moy d'abord gërëm la mais gërëm ñi nga xamné ñom la andalon euh Diourbel muy Diourbel commune muy département bi muy Ngoye Mbayar bi nga xamné fofu la def sama base parce que vraiment eh, liguey nañu def nañ effort bu rëy guddeeg bëccëg ba am liñu am parce que bo xoolee eh, ci Ngoye am nañ 61 bo démé dans la commune am nañ 55 je crois que c'est un peu près du taux national de de de mais quand même c'est un c'est un grand effort parce que bo xolé Diourbel dafa def diggante Bambey ak Touba boo xoolee diggante Bambey ak Touba Touba gis nga nu mu mel donc Diourbel nekk juste à côté am résultat yooyu kooku war nañu félicité war nañu félicité waa Diourbel bu baax a baax parce que liggéey nañ liggéey bu rafet loolu daal bëggoon naa ko jeexale sama kaddu.